waaw ñu ngi sant yàlla gannaaw ba vraiment ci atum 2014 bi ak 2015 bi yàlla baaxee ñu li nga xam ne ñu ngi ko doon wër di ko euh, seet ci ay juróom fukki at bala Sénégal di jot indépendance am dafa ay compagnie commencé ñëw sant yàlla ba mu ñu ko baaxee ci 2014 ak 2015 mu dajeek nag ayu président de la république Macky Sall euh, tombe mooy waral ay gaaf ni ko olof di waxee fi mu toll nii temm liggéey baa ngi wéy ci wàllum pétrole bi ak wàllum gaz bi ñaar yi ñoo dikkandoo loolu tamit dafa xaw a jafe ci benn at rek nga am ci lu ëpp yées fukki fukki weer nga am li nga doon wër ci ay juróom fukki at mu nekk gaz ak pétrole gaz bi damay fàttali nii ñaari euh, gox bu moo ko mënee wax ci féete ci géej gi parce que géej gi dañ ko diviser ay gox ngir mën a jagleel ku nekk ab benn région boo xam ne yow ci ngay nekk block lañ koy tuddee donc ci bloc bu ñu tudd dippe kayaar bi foofu la ñu gis gaz bu ëpp solo bi euh, mooy li ëpp lu ñu découvrir ci année 2015 bi 2016 2016 gii lañ ko annoncé 2015 moom mooy pétrole bi dama jum ci njalbeen bi 2015 mooy pétrole bi 2016 mooy gaz bi donc gaz bi bañ ëpp ñu ngi ko découvrir ci euh, fi ñuy duppee Kayar euh, Saint-Louis après fi ñuy duppee Kayar aussi bloc bi ñuy duppee Kayar am lañ fa découvrir moo gën a néew waa ba tey am na solo pétrole bi ñu ngi ko duppee ci bloc bu ñuy wax Sangomar mu xaw a jege côté tefes gi ñuy waxee Sangomar foofu tamit euh, liñ fa jot a am ñu ngi koy continuer di xayma mais xayma bi saa yu ne mu gën a yokk parce que ñu doon wax ay trois cent mille trois cent cinquante mille léegi weesu nañu quatre cent millions plutôt quatre cent millions de barils donc loolu bu bu ñu commencé yegg si foofu rek ci pétrole boo xam ne aussi dafa nu ñu koy waxee oyof parce que xam nga pétrole bi après dañ koy segg génn ci lépp li ci bokkul ñu génn ci nag ay euh, euh, gasoil génn ci yeneen ak yeneen xeetu euh, hydrocarbures produits pétroliers. bu oyofee comme suñu petrole bi boobu lay gën a neex a jaay ndax ndax day gën a neex a segg defar boobu loolu aussi yàlla baaxee nañu pétrole bu bonne qualité la bëriwul lu ñuy wax suuf ndax soufre si pour génne ko day jafe day laaj ci dépense yu xaw a bëri te baaxul ci euh, environnement bi baaxul ci moteur yi moo tax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñu ngi wéyal lool nag liggéey bi. Euh, waaw Sénégal lu mu ciy am. dina ci am lu am solo surtout que bu fekkee ni découverte yu ñu def comme ni ma waxee léegi mu ngi euh, di yokk ndax lu nit ñi di fii nit ñi di juumee souvent mooy séddale bi naka lay demee dañuy jàpp rek 10 pour cent yi ñuy dégg ni Petrosen moom la am ci association bi nga xam ne moom moo boole Petrosen ak société étrangère yi ñëw bala may sori ci loolu damay wax benn Sénégal mënoon na ne sama pétrole man maa koy wëral sama bopp bu boobaa mënoon nañu fi nekk ba ay téeméer ba ay junni at duñ ko trouver lu waral loolu ndax jafe ak euh, cher bi jafe bi ci wàllum xam-xam jumtuwaay et cetera ak cher bi opération recherche yi laaj ndax bala ñuy moom suñu indépendance ba léegi jamono tubaab yi ba léegi ñu ngi recherche pétrole Algérie bu ngeen fàttalikoo ba bala muy am indépendance am la am commencé utiliser pétrole Libye aussi bala mooy am indépendance am lañ fi trouver pétrole ci jamono tubaab ba léegi ñu ngi recherche ci gàttal rek fii ñu gis pétrole bi par exemple 68 ba léegi compagnie yu mag jaar nañ fa mooy ay Shell jaaraat fa Shell dafa jaar jaaraat ay Exxon jaar fa yeneen compagnie jaar fa bu ñëwee ci yan anam la ñuy ñëwee dañuy ñëw dugal seen xaalis ba ñuy dugal seen xaalis ñoom ñooy lépp lu pet recherche bi di laaj ci wàllum. def genre échographie ñu ngi koy wax sismique ci bloc yooyu ci wàllum gas fa ay teen te fi may wax fii ay 2800 ñaari junni ak lu tegu ci ay mètres ci suufu ndox mi la nekk donc ñoom ñooy def dépense yooyu yëpp dépense yi dañ leen di ne yéen ci wàllum liggéey lii lañ leen sas ngeen def échographie première année bi def euh, xool jàngat mbir mi càmbar deuxième période bi muy bu ñetti at yu njëkk yi pare deuxième période bi ñu ne leen ngeen gas teen gannaaw bu ngeen yokkee échographie yi troisième période bi aussi gas bu ngeen defulee loolu nag am na ay daan yoo xam ne daañ leen ko daan daan yooyu la nit ñi di jum di def ne xaalis bu ñuy jox la ñu koy def ci gafaga góor gi déet daan yu ñu leen di daan yi bu ñu liggéeyul lu ñu leen sas intérêt gouvernement Sénégal ak intérêt bi mooy ñu liggéey gas pour xool ndax dina am na pétrole am amul pétrole pas weccit yu sew yu ñuy jox ci nga xam ne du loolu moo ñu tax a jog moo tax ba indépendance ba la indépendance ba léegi ba 2014 ba 2014 gas nañu lu tolloog téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti teen ci biir géej gi. maa ngi lay wax encore une fois lu yee parfois dina dem ba deux mille huit cent et quelques mètres maanaam lu yeesu tuuti lu yees tuuti ñetti junni mètre ci biir ndox mi foofu ku fa gas teen liggéey bu am solo la donc gas nañu téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñetti teen juróom-ñett yu mujj yi rek moom la ñu gis lii gaz lii pétrole xaalis boobee yëpp ñu gasee teen yëlee mu toll mu ëpp ay téemé téeméeri juróom téeméeri milliards juróom téeméeri milliards ci suñu xaalis kooku ñoo ñooñee ko dépensé dañ ko dépensé dem sa yoon te amuñu ci dara donc kuy ñëw di dugg ci loolu mais moom it il faut mu gis ci boppam gouvernement bi tamit gis ci boppam loolu tax ñu ne bu ngeen ñëwee yéen da ngeen def benn association boo xam ne faw Petrosen bokk ci bu ci Petrosen bokkee moom moo ci moom 10 pour yi bu ngeen demee nag ba découvrir pétrole wala gaz bu boobaa ñun dinañu am intérêt yokk loxo Petrosen ci biir ñu ne mun nañ dem ba 20 pour cent waaye 10 pour cent yii di ñëw Petrosen lépp luy dépense def ciy bokk lépp luy investissement day génnee. alors que 10 pour cent yu njëkk yi du fay dara bo loolu ñoo ñu am di nag def ay dépenses di louer ay bateau di tabax ay plateforme ci biir géej gi ba pétrole bi commencé génn wala gaz bi ñu commencé ko jaay bu ñu ko jaayee am na baril buñ jaay bu ne luñ ciy jagleel pour dépense yooyee ñoo xam ne ñoom dañ ko def pour loolu mun a am pour baril pétrole bi mun a génn wala gaz bi mun a génn ñoo ñu dépense loolu dina am ci baril bu ñu jaay am na benn pàcc bu ñu leen di ciy delloo ci seen dépense yooyu pàcc bi ci des gouvernement de Sénégal ak ñooñu séddoo ko ni ñu koy séddalee aussi ci ay an am yu leer lañ ko teg bu fekkee ni yegg si guñu 5000 baril par jour nangam la ci état bi di am nangam la ci association bi di am ñoo ñee di liggéey liggéey bi ba fu ñu yegg see plus de 120 000 baril par jour maanaam la ëpp téeméer ak ñaar fukki junni. Euh, baril par jour wala lu ko yées ëpp Sénégal am ci nangam 55 pour cent xamatuma chiffre exactement euh, euh, association bi am bu ñu boolee donc association boobu Petrosen am na ci 20 pour cent donc 20 pour cent yooyu ak li Sénégal di am ci li ma leen mujj expliqué nii maanaam bu ñuy séddale séddale bu mujj gi nii loolu Sénégal dina ci am déjà lu ëpp 60 pour cent ñu yokk ci nag. taxes yi ak impôts yi donc bu pétrole bi bëree wala gaz yi bëri yenn bëriwaay yi Sénégal dina dem ba nga xam ne moom mooy moom 75 lu tolloog 75 pour cent luy génn ci pétrole ak gaz loolu kay xanaa du lu ci lu koo xam ne ba ngay risque bi bañ koy jël ak yooyu da nga toog di seetaan loolu moo ko waral parce que dañ def code boo xam ne dinañ jéem a xëcc nit ñi ñu am passe-passe pour mun a ñëw risque dara ci biir Sénégal. en même temps gis ci seen bopp Sénégal gis ci seen bopp ma fàttali rek code bi nga xam ne moom moo ak loi yi nga xam ne règlement yi nga xam ne ñooy charte yi tëral lii yëpp du ci nguuru président Macky Sall du ci nguuru président Wade du ci nguuru socialiste lañ ko tegaloon li ma ci namm loolu mooy bu doon jaarul yoon mënoon nañu amoon nañu sañ-sañu changé ko waaye ci nguuru président Wade yëpp changé wuñ ko ci nguuru Macky Sall yëpp changé wuñ ko parce que code bi dafa méngoo code pays yu bëri toll fu ñu toll ci wàllum recherche ak doole ci pétrole toll xëcc nit ñi pour ñu ñëw dépenser seen xaalis ba pare yow nga am ci gis ci sa bopp eh, gis ci sa bopp li ni mu jaadoo ci bu pétrole amee euh, bu ñu neexoon nag ñu ne bon dañuy def code boo xam ne ñun ñooy moom lépp wala dañuy jox lu ñu neex ñële waaye bu boobaa kenn du ñëw te ñun amuñu doole def recherche bi xam nga loolu tamit bu ma koy expliquer day gudd waaye ci gàttal ñu dugalaat question bi dañu ne bañ koy signé ñoom xamuñu woon Alioune Sall mu ngi ci biir may fàttali ne que booy signé mbir sa signature yow la yow yaa war a expliquer lan nga tax nga signé te ba ngay signé war nga vérifier lépp am na fooy toll ci kilifteef waroo ne man dañ ma abuser ma signé waaw ba woon di fàttali aussi que. ci charte yi nga xam ne bala ngay signé bokk na ci turu ñi jiite société yi ak ñëpp ñu leen toogal fii bokk na ci war naa leen léegi ci nasaraan décret bi mu ngi fi article 8 décret 810 98 810 du 6 octobre 98 moom moo ko joxe 98 jamono socialiste la moo joxe article boobu lépp loo xam ne laaj nañ ko pour société bi bala ngay signé ak moom lan la war a joxe bokk na ci tur ak kiiwu société bi ensuite bu nga signé war nga am pièces yooyu yëpp boo ko amulee yow yaa wóolu ñi ko ñu ko dugal yow ak ñi ko dugal la waaye yow kay yow la Sénégal war a laaj li tax nga signé loo xam ne jaaduwut bu fekkee ne jaaduwut yow mi ko signé waaye yow yow nag yaa war a expliquer ah man kat dama wóolu Mbay Sàmb wala dama wóolu kii moo tax ba ma joxee man signé wu ma euh, xoolu ma waaye di yow yaa war a ñëw laajte tey jii nii naka la fexe ba signé loolu bi ci sax surtout mooy at lu topp ci loolu am na beneen décret boo xam ne signé nañ ko toujours ci Cosmos Petrotim xam ne yokkalaat leen diir gi ñu war a nekk di chercher ci Kayar booba tey premier ministre ba woon moom moo ko signé 23 août 2013 décret baa ngi fii jox naa leen ko de mémoire nii je pense que bo bon bëgguma citer de mémoire mais décret 23 août 2013 la boobu tamit bañ koy signé waroon nañu xam mais Petrotim kan la nan la ñàkk la te surtout boobu coow la commencé woon na tuuti bo fi may daanelee mooy code bi ma la wax décret bi ma la wax nga xam ne moom mooy wax ci affaire pétrole bi moom mooy tënk lépp lu ñu doxalee ci mbirum pétrole bi dafa ni bu ñu signé décret dañ ko war a publier au journal officiel moom ak convention bi nga xam ne moom moo état bi signé ak euh, ministère bi signé ak ñi càmbar ak recherche pétrole bi donc euh, comme dañ ko war a publier journal officiel loolu kay transparence bu ñu ko weesu bu fekkee nag publier wuñ ko journal officiel parce que xool naa ci site euh, journal officiel bi gisuma ci décret yooyu mais kooku service primature yi ñoo ko waroon publier parce que journal officiel mu ngi dépendre ci secrétariat général du gouvernement bi nga xam ne mu ngi dépendre ci primature donc euh, mbir mi amul problème mais pour gàttal comme dafa bëri coow ñun wax lii wax lay jox naa leen contrat yi jox naa leen leneen bu ngeen soxlaa yeneen contrat soxla leneen man sama buntu ubbeeku na xam ngeen ma xam naa leen ngeen ñëw ñu jox leen amul problème commentaire parce que ñi neex a waxal mooy ñoo xam ne comme ni ma def ak yéen nii jox leen këyit yëpp jox leen waaye koo xam ne même boo ko nee lumière baa ngi nii mu ne lii du lumière kooku mënoo moom dara parce que bu ngeen gisee contrat bi li ma leen expliquer ci lii war ci liggéey euh, ci societé yi ñetti at yu njëkk yi war nañ def échographie war a def euh, sismique lañ koy wax ñaari at yi ci mm, tegu war nañ defaat sismique war a gas teen buñ ko defulee dinañ leen daan daan yooyu ku ko jël ne ah nguur gi kat fay nañ leen xaalis ci pétrole bi ñu def ci lu leen neex kooku dafa bëggul xam dëgg gi kooku mënuma waxtaan ak moom waaye contrat bi li ci nekk am na moom kay moom moo waroon wax nangam la ñu fay gars yi fii lañ la leen fayee. chèque bi lii la wala extra en tout cas joxe ci firnde yi nga xam ne dina mais man li ñu wax ni yëpp awma fenn foo xam ne mun naa fi sukkandiku sax pour jëmal weddi wala kii parce que dafa amul lu ci lu ci sérieux en toute objectivité loolu tax ma jébbal leen contrat yi jébbal leen lépp te bu dee am na maa ngi koy wax ci kanamu tale di leen ko wax yéen bu dee am na lu leen ci des a leer yéen xam ngeen samay numéro xam ngeen fu ngeen may fekk ngeen ne may sëñ bi am na lu leeral ci wax ji maa ngi déglu. <laughs>